asalaamualeykum wa rahmatullah taalaa wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñi ngi leen di xamal ni sëriñ Muntaxa Mbàkke yal na fi yàgg lool te ànd ak wér dafa taxawal kuréel gu bees gu tudd junatun liman nazamahu ngir taxawu ñi nga xam ne ñoo loru ci mën mi kuréel googu nag dafa lëkkale daara Hizbut Tarqiyyah commune de Touba ak Touba ca kanam kuréel gi am na ñaari compte bancaire yoo xam ne képp

képp koo xam ne nag da nga bëgg a def don en nature des denrées alimentaires wala kër goo mën a abale ci Touba ak li ko wër wala moto pompe wala bépp ndimbal bu mu mënti doon siège social baa ngi nekk ci kër Serigne Touba bi jàkkaarloog jumaa ji boo fa ñëwee guddi ak bëccëg di nga leen fa fekk en permanence lii di Orange Money wala Wave bu numéro bi disponible dinañ leen ko communiquer jërë ngeen jëf ci teewlu bi kuréel Junnatun Liman Nazamahu ngi leen di massaw